amee. Euh, chair de chair de, chair de poule ouais ouais et c'est c'est magnifique. Ouais. là j'ai envie de pleurer parce que da nga ñu yàgg da nga ñu ah, li nga ci li nga li nga ciy xaar man moom defe naa ne sama moom yaa ngi fii li nga ciy xaar yàlla na ko yàlla na ko suñu borom def amiin oh my god oh. non Pape Cheikh dafa yéeme mhm. d'une façon ndeysaan non non ça va ça dina dina neex mhm. yàlla yàlla baax na voilà moo tax euh, yàlla nañu suñu borom di jàppale rek di ñu suturaal. Mhm. Ah, siiw siiw dafa metti doon vedette dafa metti mhm. surtout bu la yàlla baaxee euh, talent boo xamante ni defe naa yii xew yëpp bi mu lay dal boobu <laughs> boobu defe naa xale yi sax juddu wuñu koñ boo demoon euh, fan sa club Alioune mbay Nder nga fa woon. Mhm. je me rappelle nañ daan ànd tout le temps ak Awa mbay Siste Eva daan dem Fass ñoo doon bokk fi ñu doon fréquenté léegi euh, Moussa Moussa Gueye bëri doole moom itam dem na léegi fekki Eva daan nañu ànd ak ku tudd Mounas Ba menace tamit dem na fekk ji euh, fekk ji donc mun nañu lim ay nit yoo xamante ni ñun euh, defe naa yàgg nañu bëgg ndeer mais dañoo jouer rôle euh, bu am solo ci suñu cofeel gi nga xamee ni am nañ ko ci Alioune bay Nder y si aussi la famille Nder ah mhm. Sénégal foo tourné woon Fatou Nder Aïda Nder Mami Nder Aïcha Nder Fifi Nder Rama Nder y a eu beaucoup de ay ay jigéen yoo xamante ni dañoo mus a bokk ci mhm. famille Nder te loolu defe naa mënu mënuñu ko fàtte en fait te foog naa ne ñooñu sax retrouvaille lay nekk loo xamante ne si sa adolescence sa enfance nga màggandoog moom mu nekk woy yoo xam ne je ñoom ñëpp dañ koy xaar retrouvaille bi nga nar a am je pense que yow sa doo ko foofu voilà bëgguñu woon jooy loo waa baal damay gërëm Sénégal yëpp ah. ndax yéen mm-hmm. yéen bi dafa fort trop ci man xaw ma ba xam naa ko attan am déet xaw ma di nga ko attan incha allah non ndax non xaw ma ba xam naa ko attan ndax nit ñi ni ñu may yéene yéene bi dafa dafa trop ci man ndax nit bu la yéenee dafa. doo am mais yàlla baax na maa ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla dimbali ma ba nga xam ne que loolu nga xamante ni Sénégal yëpp am nañ ko ci man yéene bi ak euh, nu mu mën a demee rek yàlla dimbali rek ma attan ko parce que foor na trop ci man. lu ma fi amul lu ma fi def lu fi sama morom deful xam naa loolu. Mhm. te ñu ma dàq way fuf ñoo nekk Sénégal ñoo xamante ne bii bi ñuy way man judduwuma mhm. bi ñuy woy booba xalaatuma sax ni dinaa way mais tey yàlla boole ma ci ba nga xam ni que public bi am nañ ci man benn respect boo xamante bu moroom bi nit ñi ci mbedd mi euh, cofeel giñ may wan ak respect bi. dafa dafa fort trop ci man te def ma fi lu fi kenn deful maa ngi remercier Sénégal yëpp di wax ni que vraiment maa ngi jégalu parce que c'est c'était c'est très fort pour man man nit kese la te nii laa mel mais maa ngi jégalu ci li xew ci plateau bi bu. bon en attendant mayaat leen bi beneen bu ñu mën a déglu ci euh, Aliou.